li ci penc mi mbokk yi ak télévision Futur Média gannaaw bañ leen nuyoo li ci gën fës mbokk yi dafa aju euh, ci ngan gi euh, président de la république Macky Sall amali ca Gambie nam mu ko waxee woon noonu la ko defee euh, ci waxtu tisbaar la egg foofa ca Banjul dinañ ci ànd ak suñu natango Youssouf Bodian di correspondant rajo Futur Média foofa ca Banjul ñu dikk wax ba tey ci Dakar dem dikk ñoom nag gàddu nañu yaatu grève xam ne ni gannaaw euh, ministre yi ñu tàbb amal nañ seen conseil euh, de ministres bu jëkk amatul lu ñuy xaar nañu gaaw ci saafara leen seen i tawat ci nu mu gën a gaawee mbaa lu ko mooy grève bi dana gën a tar ca bitim réew François Hollande ak Nicolas Sarkozy euh, ñi ngi nag ci wërngal bu mujj bi jëm ci seen campagne électorale juróom-ñaari fan moom moo ci des ci élection présidentielle yi foofa ca France tàggat yaram de Abdoulaye lañ ci àndal askan wi nes tout incha allah ñu dikk ci yaatalu xibaar yi li ci penc ca campagne ba la ko waxoon moom Macky Sall xam le ni bu ñu ko tabbee président de la république tukkeem bu jëkk mi ngi koy amal ci sous région bi euh, maanaam ci réew yi ñu wër ca Gambie sax la ko waxoon euh, def na ko ngir lépp jàmm am ca Casamance euh, dañuy dem fekki Youssouf Bodian di correspondant radio Futur Média foofa ca Banjul Youssouf Bodian ñu ngi lay nuyu ñu ngi di sant Pape Ngagne euh, président de la république egsi na foofu euh, ndax gisee na ak Yaya Jammeh euh, njiitu réewu Gambie lan moo fa ruusee ci wàllu xibaar loo mën a jotali askan wi. waaw jërëjëf Pape Ngagne président bu Sénégal Macky Sall agsi na tey ca Gambie ñetti waxtu bu mu weesee fukki simili ak juróom ci aéroport international bu Banjul. ku ko dal di teertu di aéroport bi nekk naataangoom président Yaya Jammeh ànd ak gouvernement bi yëpp ak ki présidente bu Gambie. am mbooloo mu takku rawatina doomi Sénégal yoo xam ne ñooy dundee yaakaar ak soppitetu gouvernement bu Macky Sall ñëpp génn si ñoo tertu kii di euh, njiiti réew bu Sénégal. Euh, njiiti réew bu Sénégal nag benn fan bi di travail bu mu fi am nag dina ko daal di dimbale mu mën a waxtaan ak naataangoom kii di doomu ndeyam président Yaya Jammeh gis naka lañu ñu war a fexe ba am ba jàmm ak salaam am ca Casamance. kiit dem bi ak dikk bi diggante ñaari réew yi ah, bu ñu ak it ah, dëgëral diggante ñaari réew yi ah, jiitu réew bu bu Sénégal nag bu mu am bu mu accès am na ay ambassadeur yoo xam ne ñoo fi teewgal seen réew it ñoo xam ne bu bëri ñoo ñëw te tertu côté aéroport bu national bu Banjul waaye nag ci gën a jàpp ci maanaam visite kii di président Macky Sall gannaaw bu ñu ko palee mu nekk euh, président ñeenteeli président bu Sénégal mooy rek euh, fexe ba jàmm ak salaam am ca Casamance. Yaya jàmmee nag di naataangoom rafetlu na loolu visite boo xam ne moom la Macky Sall def tey nee na nag visite Macky Sall bi nekk na loo xam ne dinañ ko daal di marqué ci yi te it nekk na loo xam ne day gën a firale rek kóllëre diggante Sénégal ak Gambie dëgërël ñaari diggante yi. buñ ko tertoo ba noppi kii di njiitu bu Sénégal ànd ak naataangoom président Yaya Jammeh. ak dem ci hôtel bu ñu xamee Coco Ozone nekk di waxtaan dem am na ci pour seet naka la ñu war a fexe ba maanaam seen diggante ñaari diggante réew yi ratax ak jàmm ak salaam wuyu ca Casamance. Mhm. depuis ca Banjul seen naataango Youssouf Bodian pour rajo Futur Media. jërëjëf euh, Youssouf euh, Bodian suñu naataango bu nekk ci rajo Futur euh, Media toogal rajo bi foofu ca Gambie. Euh, ñu dikk wax euh, ci wàllu protection sociale protection sociale nag ci réew mi mën nañu wax ni wàpp la def ndax ay jafe-jafe yu bari yu muy jànkonteel ci wàllu communication dara leerul ci ay mbiram euh, ci wàllu koppar dara doxul ci li nga xam ni mooy ak gafam loole yëpp doon ay jafe-jafe yu ñuy jànkonteel ba tax na nag ñu ci sàkku ci nu mu gën a gaawee ay saafara di saprera lañ ci àndal ci reportage bi ñu ci defal ci atelier wuude ba mu nekk Moustapha Guèye dafay faral di jëfandikoo ay jumtukaay ak ay produits yu koy mën a indil ay jafe-jafe ci wérgu yaramam yu ni mel bu amee waxambaane bi ak ñamuy liggéeyal ci seen poche la ñuy jukki ngir mën faju lii di protection sociale lu leen tori la lool. dañuy liggéey matière yoo xam ni mën nañ ni comme lu mel ni caoutchouc bi nii yenn saa yi bu ñuy buñ ciy liggéey quoi dem ci machine yi comme machine benn di ko raab dañuy noyyiwaale bi quoi. poudre boobu mën nañu indil ay jafe-jafe en même temps kool gi dañ koy nooyi tout temps dañ koy nooyi c'est dun utiliser leen loo xam ne dinañu mën a kii aar suñu wér gi yaram quoi. bu ñuy liggéey ba saag am comme par exemple benn cas bu mel noonu gaañ ci liggéey bi wala di nooyi benn affaire ba xaw ci feebar da ngay mujj obligé jël sa xaalis bi nga doon liggéeyee jëm ci faju ci biir entreprise yi tamit nemmeeku nañu ay problème yu ni mel ci téeméeri entreprise yoo jël daanaka ñaar fukk dong ñoo taxawal ay jumtukaay ngir aar seen liggéeykat yi. bu ñuy xool taux entreprise yi wàccoo ak moom régulièrement au Sénégal à peu près 7 pour cent la ci biir 7 pour cent yooyu sax ñi ñi am comité yi sax comité yi ciy fonctionner normalement am moyen dox bëriwul matul sax 4 pour cent donc cela veut dire que foofu liggéey bu bëri des na et liggéey boobu des xëy na. contrôleur du travail inspecteur du travail maanaam euh, gouvernement bi ci ki dénk wàllu liggéey moo war a def liggéey bu tar foofu pour contrôler entreprise ñu doxal li ñu war a doxal foofu ci yoon. moo ne am na loi buy obligé bépp entreprise mu wàccoo ak tëralin woowee waaye boobu loi dafa mel ni ku nax saay. ci législation wu Sénégal entreprise bu demee ba am lu ma juróom fukki liggéeykat war na créer comité de santé sécurité au travail maanaam bànqaas boo xam ne mooy. yelloo gérer lépp lu jëm ci santé sécurité liggéeykat yi fi muy liggéey maintenant loi bi lim exiger ci chef d'entreprise bi mooy quelque que soit bu amee comité d'hygiène ak bu amul comité d'hygiène tamit moo war a jël en charge sécurité wu liggéeykat bi ci biir lieu de travail bu ko amee xayrun structure boobu lay jaare mais bu ko amul tamit moom am na obligation jël en charge santé sécurité liggéeykat bi ci lieu de travail tey défi bi mooy fexe ba képp ku yeewoo ci réew mi am protection sociale waaye ngir mu mën a nekk faw ku nekk dugal ci loxoom ak njàppalu nguur gi ndax protection sociale weesu na nécessité léegi yelleef la. Ah, bu ñu jógee ci liggéeykat yi jooy sécurité sociale dañu dem ci yeneen liggéeykat ñoom nag li ñuy jooy mooy seen weeri payoor yu ñu leen ameel. Euh, muy ña nekk ca Dakar dem dikk ñoom li ñu xam ne daal moom mooy gannaaw gouvernement bu bees bi taxaw na euh, li ñuy xaar ci moom mooy seen salaire yi ñu leen amel nañ leen ko fay waaye tam oto yi ñu fa gaare mu nekk ay oto yu bees tax nañu jël ay koppar yu takku euh, def ko ci ci wàllu assurance wàllu ay seen ay numéro oto yi ñu war a am ak lépp loolee lépp bi ñu ko xayma toll na ci 400 millions yoo xam ni dañ koy laaj ñoom nag àpp bi ñu joxe ngir gën a baral seen ñaxtu gi talaata la ñuy xaar ministre budget mu indi saafara ci seen. tawat googu dañ ciy ànd ak Fatimata Ba ak Jatu Ndiaye. liggéeykat ya nekk ca Dakar dem dikk tey ab mer la ñu yeewoo ñoom nag li ñuy sàkku mooy ñu fay leen seeni salaire. ñaari mbir ñoo ñu tax a jóg tey xiif ak jaaxle xiif parce que bi weer dee ba léegi kenn amul salaire Dakar dem di kenn fayekowul dama ne salaire kenn du ko négocier salaire dañ koy imposer aux décideurs. liggéey nañu ba weer dee nañ ñu fay état nee na kees amul dara loolu du waxu financier. ñuy laaj itam benn fonds 400 millions de francs CFA ngir ñu mën a doxal bi yi nga xamante ne Chine moo leen ko may. tey jii ñaari téeméeri kaar yooyu gaare na mu ngi nii mais gaa yaa ngi ci arrêt yi di xaar toujours te ma ne ñun ñu ngi doon fonctionner ak 120 kaar 130 kaar yu màgget ya tey jii nga indi ñaari téeméeri kaar joxo kenn xaalis. pour mu boole ci njëndum gasoil assurer car yi parce que client bu yëg ci car na la leer ne car yi assurer nañ ko wala immatriculation car yi car yi dafa laaj ñu ko accompagner accompagnement bi nag ñu ngi laaj quatre cent millions yoo xam ne jootewul dara ak suñu salaire yi nga xam ne moom la ñuy verser ñetti weer yu ne. ñoom nag gis nañ ni bu ci autorité yi jàppulee ba ñu saafara yooyee jafe-jafe dinañu def li leen war. bu dul loolu. dinaa wootee rassemblement bu gën a urgent parce que ab secrétaire général noo man man man a mel mais décision bi ngeen war a def rassemblement moo koy joxe assemblée général moo koy joxe. d'accord nañu ñun lëkkaloo ak waa AFTU gën a dooleel suñu bopp seen métit ak suñu métit ñu boole ko xalaat leen bu baax fu AFTU taxawee ak Dakar Dem Dikk taxaw. liggéeykat dem dikk yile ñu ngi yaakaar ci ministre budget bu bees bi di Abdoulaye Daouda Diallo ndax kat bu ñu sukkandikoo ci li ñuy wax nekkoon na seen directeur administratif et financier dañuy dem fekki Daniel Diouf demaloon nañu nag ci euh, ndaje ma male ñu doon xamale ak téere bu bees euh, bi nga xam ni colonel Sidi Sadi euh, moom moo ko bind mu doon xamle lan mooy taxawaayu gendarmerie nationale ci doxalinu réew mi téere boobu nag mu dëxëñ ci lu bari lu am solo ci taxawaay bu am solo bi gendarmerie am ci biir réew mi gën na ko leeral ak taskatu xibaar yi ak askan wi teewoon ca ba mu doon siiwal lu sabab téereem boobu colonel Sidi Sadi dañu koy euh, déglu ak euh, kii di Daniel Diouf. bi maa ko bind bi ma euh, seetloo ne ñu bari maanaam ay gëstukat waaye gendarme ne man walla ay simple citoyen dañ ñi dañ doon ñëw ci man bi ma laaj ci gendarmerie waaye boo ko seetloo daanaka ginnaaw Pierre Rosière mi bindu tuuti ci gendarmerie daanaka amuñu ay mbind ci gendarmerie looloo tax ma ne pour ñu jox élèves yi nga xamante ne dañu nekk ci ñun di jàng ak euh, ñi nga xamante ne ne dañuy gëstu ci gendarmerie ñu jox leen loo xamante ne nii euh, mbind la moo xamante ne ni lu wér lay doon dinañ ci mën a sukkandiku pour euh, li ñuy wut ci gendarmerie ñu xam Euh, muy colonel Sidi Sadi mi bind téere boobu kii nag professeur am la woon bu teewoon itam ca ndaje ma Serigne Diop la ñu koy wax euh, dellu si na ci solo ak euh, li nga xam ni moom mooy lii fës te am njëriñ lool ci téere boobu nga xam ni ndongom bi fësal na ko ñu déglu Serigne jóob ba tey ak Daniel Diouf. livre bi mu bind nag tey livre bu am solo la ndax xam nga gendarmerie gendarme ñun ñëpp miin nañu gendarme ndax ñu ak gendarme yi la bis bu nekk. waaye wóoru ma ni ñun ñëpp xam nañu bu baax a baax a baax gendarmerie livre bi nag daf ñu jàngal gendarmerie depuis 1843 bu ma juumul ci dat bi ba léegi waaye surtout lan mooy wàllu gendarmerie ci réew mu ñuy tabax ak réew moo xam ni bu ñu ko tabaxee ba noppi dañoo war a farlu ci réew mi jaar ci yoon ba ku nekk lii sa àq ak sa yelleef nga mën ko am ba mu mat sëkk te bokk na ci nag ak yi ëpp solo mooy nit ku nekk ñu bañ laa noot maanaam ki la ëpp doole bañ laa duma ki ëpp doole bañ a jël sa alal te loolu ki nga xam ni moo ci war a taxaw ba mu mat sëkk bis bu nekk ci sunu biir gendarmerie la. ca Fiera la ñuy wax Fiera nag muy foire bi ñu jagleel wàllu euh, mbéy mi ak lépp loo xam ni dafa xeetoo ak wàllu wow muy euh, mbéyum nawet bi di mbéyum dër mi ak lépp li nga xam ni daal euh, xeetoo na ci wàll boobu foire boobu nag dajale na ñu bari ci biir réew mi télévision Futur Média demoon na fa nemmeeku seen taxawaay àndoon ko ak munu Ndiaye ak Adama Guèye ñu teewlu lan lañ fa jëlee. FIARA bu atum 2012 ñu ngi fii ci dalu région bu kaw Kaolack fii nag lépp a ngi fi li ko dalee ci ñamu dugub mboq gerte ba ci sax ay per tànn sa bu la neex la. variété lañ fi indi vraiment même pâte d'arachide bi bu Taïba Niassène mi ngi fi aussi huile d'arachide bi mi ngi fi aussi marché géej ñëw nañ ñoom it def seen participation indi fi géej ak keccax at bi nag waa Kaolack dooleel seen i produits. boo xoolee village artisanal ñëw na indi fi seen i produits muy cordonnier yi di sculpteurs yi di tisserand yi ak euh, transformation fruits légumes ak transformation céréales locales. ay peme la ma di ko nas boole kook cuub ndax peme dafa ànd ak cuub booy jaay peme danga koy boole cuub. maa koy cuub di soxna si moom fukki at ak benn ci ren muy teewe fiara bi tey jii mi ngi ñaax nguur gi ci seen i jafe-jafe. bu ñu bàyyee géej gi yeneen di di jël jën yu baax yi di ko yóbbu bàyyi waa Sénégal kooku moom ñun daf ñuy xaw a métti ñaan nañu gouvernement bi daal ñu jóg ci loolu solution boobu ba pare ñu améliorer euh, condition de vie condition de travail des transformatrices. ñu dolli seen euh, seen seen seen koom. ci ci financement. fi mu toll nii ñiy jënd taxuñu ko takk noonu wante exposant yi di am yaakaar ci tal bi. Euh, Fiara baa ngi noonu ca euh, CICES lay euh, amee ñu dikk nag wax ca bitim réew xibaar yi ci aju ca Guinée Bissau la fa xew fi mu nekk nii militaire yi ak ku kujeg politique gi ñu ngi xool nu ñuy waxtaanee fële ci Égypte moom lu jëm ci élection yi ñu fa dëgmal candidat présidentiel yi la ñu nekk ci seen xayma ca France itam gis nañu ne foofa ñu ngi jëm ci wërngal bu mujj bi ñeel campagne électorale présidentielle yi ci tënk Émile Diouf moo ñu koy yaatalal. fële ca Guinée Bissau militaires yi ñu ngi wéel seen waxtaan ak parti politique yi ngir ñu taxawal benn gouvernement d'union nationale waxtaan yooyu ñu tàmbali aljuma ak lu toll ci fukki parti politique yu nekkoon ci kujéeg politique bi nit ñaa ngi ciy xaar mu jur gouvernement bu boole mbooleem parti politique ba mu des PAIGC militaires yi ñoom fas yéene nañ teg seen loxo ci ñaari ministères yu am solo muy bi yor mbiru larme bi ak bi toppatoo kaaraange biir réew mi bi ñu seetee seen biir ci samedi bi njiitu parti politique yooyu dellu nañ gisee waat ak militaires yi ci dibeer bi ca Égypte commission électorale bi yëkkati na dogal ne fukki candidat duñu mën a bokk ci élection présidentielle bi war am ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mais bokk na ci ki di général Omar Souleymane nekkoon fa njiitu service de renseignement yi Khayrat El Chater doon candidat frère musulman yi ak Hazem abu Ismail candidat bu bootu ci salafis yi muy des ñeenti candidat yu am maanaa ñu mën leen a jàppee favori Abdel Monem abu Foutou di candidat islamiste bokkoon ci frère musulman yi Mohamed Morsi njiitu parti bi wuyoo ci turu liberté et général Ahmed Shafik doon premier ministre bi mujj ci nguuru Hosni Moubarak ak kii di Amr Moussa nekkoon fii secretaire général bu mbootaay réewu arab yi benn semaine des ñu amal premier tour ci élection présidentielle ca France Nicolas Sarkozy ak François Hollande fas yéene amal meeting yu rëy dimanche bi ci Paris ki ci njëkk di def meetingam fi ñu naan place de la Concorde ki ci mujj di amal bosam ci place bi ñu naan esplanade du château de Vincennes donte am na ay jafe-jafe yu ñuy séntu ci wàllu circulation bi ak maraton bi nar a am ci biir Paris waa PS ak waa UMP ñu ngi yaakaar a mobiliser ay junni junni militant ci seeni meeting ak meeting yu yi ku ne di jéem a wane sa doole ngir électeurs yi woteel leen ci dimanche bii di ñëw. tàggat yaram mbokk yi bàkk baa ngi noonu Abdoulaye Deex la ñuy àndal ci atal gi Deer Abdoulaye maa ngi lay nuyu. fay naa la Pape Ngagne di nuyu di ziar téléspectateur TFM wàllu football ak onzième journée Ligue en bu senegal jamono ji ñuy àddoo benn ci match yi gën rëy ci journée bi ñi ngi koy jongante stade Demba Diop diggante Casa Sport la ak ñaari tali ñaari tali mooy dalal Mame Fatou fan lañ toll ci jongante bi. waa jërëjëf euh, Papa Abdoulaye Der fi ñu toll ci jongante bi euh, maanaam dépassé nañu waxtu de jeu gannaaw ba nga xamante ni. Euh, Euh, ñaari tali ni nga ko waxee mooy dalal Casa Sport ci match bu am solo ndax Casa Sport euh, bu ngeen ko fàttalikoo mooy leaderu poule B bi moom mu am juróomi poñ avance ah, balaa match bi di commencé si ñaari tali di troisième waaye fi ñuy wax ak yéen nii fi mu ne ñaari tali mëneegum 1-0 euh, benn bal ci dara nga xamante ni match bi premier mi-temps ba mu desee ñetti minutes daal waa ñaari tali ci benn action bu xaw a flou nag dugalee but bi bi nag ki ko dugal Nioro ne ma sax moom euh, nawetaan le doon euh, joué avant HLM 5 moom nag fi mu ne nii moo permettre gum ñaari tali mu mënee 1-0 match bu xaw a am solo nag euh, match bu neex ñu ngi gis bi ñu duggee ci deuxième mi-temps bi ba léegi euh, Casa mu ngi pressé même si nag mën nañu xalaat ne que ci kanamu but bi euh, Casa dafa manqué en pou de précision dafa manqué un peu d'efficacité mais euh, au plan possession balle ñoom ñoo dominé pour le moment ci deuxième mi-temps bi aussi ñu seetlu ni waa Casa Sport def nañu ñaari changement ah génne benn attaquant bi Pape Sané indiwaat beneen attaquant samp ñaari attaquant kii di Aliou Koli nekk moom ci fond de l'attaque match bi nag mën nañu au moins am nañ ci biir li ñu gisul nag ci euh, première heure bi gannaaw douane ba mu dalalee tere Turekunda douane moom nekk euh, ci sur place bu métti te du tey sport bi mu def moo koy jàppale ndax euh, ndam demul ndam dikkul zéro zéro le match boobu mujjee douane nag moo jiit woon benn place Turekunda mu mel ni match boobu mu jeexee ñaari équipe yooyu daal euh, fi ñu nekkoon lañ nekk ba léegi donc comme ni ma leen ko waxee ci deuxième match bi xam naa ay ñeent fukki minutes moo ci desandi euh, donc ñaari tali mené un à zéro devant Casa Sport nag muy l'un des matchs match phare bi euh, onzième journée bi ñàkkul nag xëy na waa Casa Sport dinañ fexe tout pour jëli waaye j'imagine que ñaari tali ak ni ñuy joué et c'est joué en contre-attaque boo mooy ñoom dinañ fexe euh, ba alourdir score bi loolu daal Pape Der lañ fi mën a jàppandi fii ci stade Demba Diop. jërëjëf maam Fatou Ndoye ca stade Demba Diop diggante Casa ak ñaari tali. ñaari tali moo ko jiital la fàttali ne it euh, yegge nañu ne douane ak Torékunda dañu tëwoo kenn dugalul dara sa moroom altine gi la ñuy mottali onzième journée bekk jaraaf daara liñ ci jot a jongante kon Géejawaay football club moo daan démb jàmbaar bu Saly Portudal ñaari bal ci dara duc daanit ñaar ci dara CSS euh, compagnie sucrière sénégalaise euh, duc bu ngeen ko déggee mooy Dakar Université Club uso club Wakaam moom ñàkk diggante mag Linguère mi ko fekk si daan benn bal ci dara yaakaar ak Gorée dañu tëwoo kenn dugalul dara sa morom AS na benn ci dara la daan yëgoo kon ci poule A bi mun nañ ni dafa tagga témbe ndax jàmbaar mi jiitu dañ ko daan iso mi ko ñaareel it ñu daan ko euh, ci poule B bi ñuy desandi xaar kon résultat Casa Sport mi joué jamono jiite ñu jiital ko ak jaraafit mi ko dar ci euh, poule boobu ca France moom euh, Marseille gagné na coupe de la ligue bi démb digganteem ak Lyon gannaaw prolongation 104e minute Brandao dugal benn bal ci dara dox seen digg kon ca stade de France ñetteelu yoon a ngi nii Marseille di teg la di jël euh, coupe de la ligue noonu it mun nañ ne Marseille sauvé na saison am ndax jaare na fa qualifié ci Europa League bi euh, ci Ligue 1 bi moom mbetteel bu rëy a am ci dimanche ji ndax Montpellier mi jiitu woon. Euh, Lorient bokk ci équipe ya nekk ca suuf a euh, suuf Lorient moo daan Montpellier ñaari bal ci benn ba tax jamono ji Paris Saint-Germain ak Auxerre ñi ngi ci juróomeeli minute bi kenn dugalagul woon euh, dara yeneen résultat yi lii moo noggatu Ajaccio ñeenti bal ci benn Saint-Étienne ñaar ci benn la daan Brest Sochaux daan Dijon benn ci dara Nancy ak Bordeaux dañoo too ku nekk dugal ñaar sa morom Lyon ak Marseille ñi doon jogante démb final ñoom dañ leen dàqal seen match ya Caen Toulouse di dalal Lyon 34e journée ba ca Angleterre Manchester City gannaaw ba mu amee ndam démb Euh, wàññi woon limu poñ bi dox digganteem ak Manchester United Manchester gont na dàbbali ndax Manchester yërëmul euh, benn yoon Aston Villa ma mu doon taseel ñeenti bal ci dara le Manchester United noggatu waa Villa yamoo kon démbit 6-1 euh, le Manchester City noggatu woon Norwich kon lii mu bi dox seen digg di juróom ndax Manchester City mooy ñaareel euh, United moo ko jiitu Arsenal altine bii lay joué àllarba Chelsea ak Newcastle la waral lu ni mel Chelsea da doon joué demi-finale sànq ci ngoon demi-finale cup moo jàll ndax euh, Tottenham la noggatu it 5-1 Chelsea dina finale ak euh, Liverpool mi éliminé démb Everton ca Espagne 33e journée ba ca bopp raw gàddu gi dafa tagga témbe it ndax Real bu Madrid dafa gagné FC Barcelone dàbbali gagné it ñaari ci benn moo dox diggante Levante mi doon euh, dalal Barcelone Barcelone mujj ko daan donte Levante jiitu woon ci match ba Real bu Madrid moom ñett ci benn la daan euh, xiixoon ñeenti poñ dox diggante Barcelone ak Real bu Madrid mi jiitu ca Allemagne it euh, Bayern dafa mel ni mi ngi gën a nasax ndax mooy ñaareel te dafa match nul ki jiitu Dortmund gañe kon lii mu poñ bi dox seen diggante juróom-ñett la Dortmund moo jiite foofu fàttali ne Calcio ba ca dëj la nekk ndax benn na bu faatu démb arrêt cardiaque ko faat ca terrain Pescara euh, diggante Pescara la woon ak Livourne moom nag mi ngi doon wuyoo Pierre Mario Morosini euh, ca terrain ba la daanu ambulance mujj ko fab yobbu euh, la waa kër docteur def yëpp antuwul ndax dogalu sunu boroom a fa jaar milieu de terrain la doon football moom Morosini moomu ñaar fukki at ak juróom la amoon ba tax na nag match yi ñu jàppoon ci samedi jeeg dimanche ji dañ koo dàq li ci gën a fës danañ ko jongante ci àllarba gii nu dëgmal bokk na ci Milan AC mi nekk ci ñaareeli place bi dar Genoa dal dar Juventus kon Milan AC moomu mi ngi taseek Genoa Cesena bokk ci équipe yi ne ca suuf Juventus moo koy Euh, fekki ci wàllu basket quatrième journée playoff la ñuy euh, jongante jamono ji ñuy àddoo ca euh, Marius Ndiaye jigéen ñee ngi ci ak Duc US Wakam waaye it Gia Sibak ci dimanche ji la ci góor ñi li ci gënoon a fës démb ci samedi ji la woon ndax université Gaston Berger ak match bu rey dox seen digg waaye étudiant ndar yi ñoo daan 61 46 ni ki it duc mi daan raay 70 64 ci wàllu athlétisme it euh, papp ngañ semi marathon international bu Dakar Cheikh Sadi bu jara teewaloon ñu fa dinañ ko yaatal ci kattanu borom bi ci yeneen i ndaje xibaar ci TFM incha allah yeneen xeeti tàggat yaram. Abdoulaye Daer jërëjëf ci yàttalug xibaaru tàggat yaram yooyu ñu ngi lay jaajëfal mbokk yi mu nekkoon euh, li gën a fës ci li ci penc mi ak télévision Futur Média ñu doon ko yaatal man doon ci ak Deex Abdoulaye ci tàggat yaram mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen euh, di leen jox daje bu ci yàlla àndee ëllëg jërë ngeen jëf 20 di ngeen dikk ak ñun euh, ci l'incontournable bu ci yàlla àndee ci kanam tuuti incha allah lay doon jërë ngeen jëf.